tey li jëm ci mbirum xibaar bokku na si nag li soxal nag passation de service bi nga xamante ni dañ nay am ci diggante nouveau président bu assemblée nationale El Malick Ndiaye ak ki nga xam ne mooy Amadou Mame Diop nekkoon ancien président bu l' assemblée nationale loole nag ñu daal di koy amal niki tey jile ak gannaaw nag boobule installation du quinzième législature bi nga xamante ni dañ nañ koy amal ci nag loolu tamit ñu daal di élu ki di El Malick Ndiaye comme président de l' assemblée nationale bu ñu jeexalee xibaar yi bokk na si nag li soxal massacre Thiaroye bi nga xamante ni daal di woon am ci atum 1944 gannaaw reconnaissance bi nga xamante ni réewum France dañ na koy amal jëm nag ci yile massacre Thiaroye 44 jamono jile nag député yu France ñoom nag dañ nañoo réclamer ngir nag ñu amal ak coupe création d'une commission d'enquête jëm nag ci mbiru moomee ci nag noonu tamit yile député français ñoom nag dañ nañoo ñaaw lu boobule absence de la République française di amal la Macron ci boobule commémoration des tirailleurs sénégalaises bi nga xamante ci dimanche bi lee ko doon amal gannaaw nag bi ñu xamle ni boobule massacre rek dañ lay nekk plus grand massacre coloniaux ba tax nag ñoom ñu lee ñoo ngay sàkku rek ñu daal di amal akub création d'une commission d'enquête jëm nag ci les tirailleurs sénégalaises yi nga xamante ni rek daal di woon nañ leen